Moustapha Diop ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay soxna si di ñu ñuy seetaan ñu déglu ci biir réew mi activité bi waaw di wax ni rek yow bokk nga ci euh, communication mouvement FRAPP ñu doore ko rek euh, actualité bi euh, daal di tàmbali ak campagne électorale bi nga xam ne tàmbali na jëm ci jongante élection législative ñu war a amal 31 juillet bii di ñëw donte démarrage bi demewul noonu ak tabaski bi nga xam ne moom la tombel ñi ngi tiit déjà ci recrutement nervi yi ak scène de violence yi yow ndax atito mu am ay violence ak lan ngay ñaax rek politique bi surtout côté retour recrutement nervi yi bu ñu gisee ni nguur gi ñooy gën a recruter ay nervi parce que ñoom ñooy gën am moyen waaw comme ni nga ko waxee souvent ci ci côté nguur gi la ñuy gis ne ñooy gën a jël ay nervi maanaam ay nit gën a fay ngir ñuy dal ci kaw askan bi mhm. loolu nag di loo xam ne lu ñuy ñaaw la te ñu yàgg ñaaw la di wax ne euh, di wax état du Sénégal ñu jël président Macky Sall xam ne ñoom ñoo yor kaaraange askan bi ak seen dem seen dikk ñu fexe ba gaar askan yi ba benn képp kenn du leen laal ñu fexe ba campagne bi déroulé ci askan bi nekk ci nekk ci dal mm. waaye dañuy gis ne kat président Macky Sall moom xaaruñu ci moom lu bari ndax gis nañu kat bu muy dem moom day ay maire lay àndal ñuy dal ci kaw askan bi police ak taxaw di leen seetaan mbir bi yooyu noonu dal nañ suñu kaw lu bare bari bu ñu demee ñaani ñu demee benn wàllu faal jël ay mbir dal suñu kaw te boobu ba dugal nañ ay plainte ci police ak xewul donc ñuy wax président Macky Sall moom xam ne moo demoon Fouta ñu gis ay nervi dal ci kaw askan bi leen que mu wax ay ñooñam ñu bàyyi nervi waaye itam ñu aar askan bi ba campagne bi mën a déroulé ci jàmm ak salaam bu kenn bañ ci loru. ndax tiitoo euh, campagne bi am ay violence comme ni ñu koy nemmee ko à chaque fois campagne bu amee rek. violence yi day bëri. waaw gis nañu kay violence yi na ndax violence du violence physique rek mais violence boo gis am ndax gis ñu xam benn dëkk di wax ne kat diw bu ñëwee suñu dëkk dafa campagne def ko def nangam ak nangam ko de la république dafa waroon jël yoon ndax kat Sénégal kat benn doomu Sénégal boo gis am na sañ-sañu dox fépp ci biir réew mi te kenn mënu ko mën a faagal wala kenn mënu ko koo ko donc dooñu ay doomu Sénégal lañ am nañ sañ-sañu dox fépp ci biir réew mi circuler fépp ci réew mi te kenn a doomu Sénégal yëpp ko bokk bépp doomu Sénégal am circuler fa donc ñooñu nag ñi nga xam ne ñoo di violence physique verbale yooyu noonu violence physique andi kon ñooñu procureur la teg leen ci yoon ndax kat Sénégal ñëpp ko bokk te ku ne am nga sañ-sañu dem fépp fu la neex Sénégal. Euh, ñu wax euh, ci Pape Mamadou Seck di ab euh, militant politique bokk ca PASTEF bu nekk Daaru Musti ba ñu sukkandikoo ci ab bataaxal bu tukkee ci administration pénitentiaire nee nañu dafa évadé wu maanaam dafa rëcc ci pavillon spécial hôpital Aristide Le Dantec fi nga xam ne moom lañ ko hospitalisé woon ndax dafa amoon jàngoro bu xaw a Euh, donte bésub tabaski euh, ñu annoncé partout ci réseaux sociaux yi génn àddina ba ñu bari tàmbali di ko jaale euh, FRAPP lan moo ci xalaatam jamono ji. waaw FRAPP li ci xalaatam mooy xalaat askan wi ndax gis nañu démb ba communiqué di génnee askanu Sénégal kenn daanaka mënul tax ba gëm loolu noonu ñu lay bëgg a gëm loolu. Mm-hmm. ndax gis nañ ne sax ñun ci biir communiqué police bi da am ay waroo ndax police astafurla ci biir communiqué wu administration pénitentiaire dafa am mm-hmm. bi dafa wax ne ci benn xët ne. ba mu sekkat dafa am pathologie sévère. Mm-hmm. koo xam ne dafa am pathologie sévère ba ñu bëri tàggee ko ne dee ko kooku nan la mën a gisee amee force na la mën a amee lucidité nan la mën a tur wutee ay nit ñu mën a fexe ba génn ba daw. ko loolu du lu jaaxal lool du loo xam ne képp koo xam ne borom xel nga mënoo ko gëm. Mm-hmm. gis nañu ne kat police kat wala gendarmerie wala administration pénitentiaire toujours dañuy génne communiqué yu mel noonu bi ñu defee seen jéyee pare gis nañ ko ci kaaw Elimane Touré ci kaaw Abdoulaye ci kaw Seck Ndiaye ci kaawu kaa yu bëree bëri yi nga xam ne tey jii police dañ leen gendarmerie dañ leen di pare gën ay communiqué di ñu gëm loolu loo xam ne kenn mënu ko gëm moo tax ñuy wax police ak gendarme moo tax ñuy wax euh, administration pénitentiaire ne ko na fexe ba suñu suñu mbokk Pape Pape Mamadou Seck mu mm-hmm. andiwaat ko si ay loxo ci ci loxo yu wóor doo wax ni leen ko bu dee fekkee ko faagal mm-hmm. ñu wax ñu yéen ko circonstance lañ ko faagale ak fan lañ ko faagale mm-hmm. ndax li ñuy gëm loo kat duñ du lu ñu gëm ndax lu ñu gëm loolu Pape Moussa Seck daa nekk ko violent ku daw du ñu gëm Pape Moussa Seck doomu Sénégal la boo xam ne musul am jafe-jafe ak ak yoon am cas judiciaire bu verse donc nekk agent de l' administration sénégalaise ko mënul daw di rëcc ak ak ak nekk ko violent mm-hmm. ndax man personnellement ku ma xam la mu nekk sama mag ñu bokk ndoo fu ñu jógee Daaru Moussi donc ma xam ko muy xam ko ci ko xam ne ko dal la ko am jàmm la kooku mënuñu ko ñëw présenté mais nit ku violent la ko am dafay dafay faagal ay nit la dafa bëgg a euh, yàq état du Sénégal la ba ba na daw génn réew mi loolu mënuñu ko gëmloo te loolu duñu ko mën a gëm donc ñu wax administration pénitentiaire nañu ñu wax ci ko circonstance mu sekk nekk ak nan ko def ba leen faagal mu génn aussi ko faagal mhm. euh, yéen mouvement FRAPP euh, Moustapha yéen ngeen yàgg a xeex anam ñi nga xam ne euh, moom lañ détenir prisonniers yi ci biir prison yi tey est-ce que ñu xoolaat traitement bi nga xam ne moom lañ di traité ci biir prison yi ak war a itam xoolaat projet bi nga xam ne mooy teg bracelet électronique ngir ñu éviter rek yenn cas yu mel nii waaw ñun yàgg nañ ko xeex yàgg nañ wax état du Sénégal ne ko détenu yi kat ñi nga xam ne dañ leen jàpp ay nit la ñoo xam ne dañ leen naam dañ leen xañ seen seen dem ak dikk mooy seen liberté hmm. waaye seen dignité maanaam muy seen seen seen dignité waruñu ko bafoué hmm. donc war nañ fexe ba politique carcérale ñu revoir ko ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi hmm. ak ñoo nekk ci cellule de commissariat yi ñu traité leen bàyyi torture bi ñu leen def traité leen de manière bu nga xam ne day fexe ba seen dignité ñu sàmm ko bracelet électronique aussi ñu andi ko fexe ba ñoo nga xam ne dañoo def yenn jéye ñu mën leen a euh, jàpp waaye mën leen a teg loxo waaye ñu fexe ba ñu mën leen a bàyyi ñu jox seen ay soxla bu ñoon yoon soxlaa ñu daw ñu ñëw si mais tey nañu ne kat commissariat yi ak ci prison mm. mm. euh, euh, nga xam ne moo di euh, jéey nga xam ne moo di la def la takk deer yi di def ñu mën ci taxaw waaye rey nit ci biir prison yi dañu faat ci biir prison yi te bu tey dañuy wax yoo xam ne histoire yoo xam ne kenn mënu ko gëm donc Pape Moussa Seck mi xam ne jaar nañu fi donc état du Sénégal war na fexe ba politique carcérale Sénégal tey souvent ñi xam ne moo prison yi euh, dañu ay du fa dem du leen du du leen fay daal hmm. day jël ay alal di ko def feneen mais ko def ci prison yi te prison yi ña fa nekk kat ñu yeyoo toppatoo la parce que ay doomu Sénégal la ñu xam ne xëy na ñoo juum mais dañu war a traité fexe ba ñu dellu si waat seen njaboot di ji ci anam bu wér ñu mën leen a corriger delluwaat seen njaboot ba fexe ba jëriñ askan bi mais li lañu teg lu métti la loo xam ne lu lu lu lu lu ñaaw la ci ci deru Sénégal lu ñaaw la ci euh, deru Afrique. Uh, Moustapha ñu wax rek ci uh, deewub Idrissa Goudiaby di ab ndaw taximan génn àddina ca Ziguinchor bés manifestation yi nga xam ne ñu ngi ko doon organiser foofule uh, Yewwi Askan Wi amaloon ko fa vendredi 17 juin Euh, ba jamono ji nag euh, euh, procureur favorable woon na pour ñu amal ab contre expertise waaye jamono ji mu mel ni rek da cee dellu ginnaaw loolu tax ba avocat famille bi sax mer na ci ba fupp di maître Amadou Diallo procureur ca wet ga nee na day adressé ab lettre ca président ordre des médecins ngir mu sàkku ci moom mu désigner ab mercin bu mu jàpp ni ku neutre la ak indépendant am ay compétences yi nga xam ne moom la ñu soxla pour mu def contre expertise boobu kon jamono ji bañ na médecin bi nga xam ne famille bi moom la désigné ngir ma amal contre expertise boobu euh, lan mooy xalaatu FRAPP ci mbir mi la. waaw FRAPP li mu xalaat mooy jaaxle ndax lu procureur lan moo tax muy def jëf ji yëpp maanaam di def énergie ak di maanaam tëb di daal yëpp pour gañ famille bi accéder parce que gis nañu ne famille bi booba tey dina leen tere sax xañ sax ñu accès ci ki nga xam ne mooy seen néew doom. Mhm. donc jébbal euh, kii bi njaboot gi ñu xool keneen aussi mu def contre expertise ñu xool ña anam nañ ko reyee parce que loolu procureur jox na version am wax ne seen médecin ñu woo seen mu ñëw ñu ne arme blanche moo ko rey hmm. ne ñëpp ñu teewoon mbir mi ñu nekk ay ñu xam ne ñu fekke lañu ne mooy Idrissa Goudiaby hmm. bal moo ko rey ci hmm. bal mu fi faatoo donc ñoom ñu ne arme blanche moo donc nag war nañu mën a jox aussi occasion war nañu mën a jox aussi sañ-sañ famille bi ñu def contre expertise xool ndax li procureur wax ñu gam-gam la ñaari position yi xool ba waaye de gis nañu ne président moom kat mooy tëdd di daal di pexe di bañ ñu def contre expertise loolu nag dañu lan moo ko jaral loolu ndax procureur dafa xam ne dafa dee ci su ko sax wala lan moo tax procureur nanguwul joxe euh, joxe néew ñu def contre expertise hmm. parce que aussi bu dee la ñu wax ñoom gëm nañu dëgg la te si indépendance judiciaire lañ ko ñu xool aussi dem gam-gam le ba xam lan ci yan anam si la seen doom dee ko rey ak naka lañ ko reyee hmm. loolu daal loo xam ne lu lu lu lu jaadu la procureur la moo tax ma koy bañ ñun tamit loolu jaaxal nañu hmm. Euh, ñu wax ci njëg yu cher yi Moustapha Diop ak euh, ñu nemmeeku ci marché bi euh, lépp li nga xam ne rek ñu ngi koy jëfandikoo ci kër gi lekk beek yeneen mu mel ni njëg yëpp dafa cher frappe mu mel ni yéen daal li ngeen di communiquer ci wàll boobu jamono ji bëriwul. FRAPP yàgg na communiqué ci loolu. bu ñu xoolee bu ñu njëkkee cher bu ñu njëkkee di commencé cher FRAPP defoon na manifestation police ak bédéwaay. Hmm. ba ñu jàpp ci suñu ay naataangoo ku ñu mel ne Guy Marius Sagna nekk suñu Papis Diouf ñu jàpp leen foofu noonu. Hmm. ci commissariat bu bédéwaay donc FRAPP bokk na ci njëkk def manifestation ngir ñaawlu li nga xam ne mooy jéggi cher yi nga xam ne état du Sénégal mooy teg ci dox askanu Sénégal bi nga xam ne ñu sonn loolu. waaye FRAPP lii bëcc ko ndax dañuy wax ne souvent ñoom dañuy taafantaloo ne guerre bi am Ukraine ak Russie moo tax njëgi cher hmm. mais du loolu ñun xam nañu parce que ñun wax na yàgg dañu wax bu yàgg ba tey ne Sénégal état du Sénégal du annoncé ne dafay am am ren dana am budget bu toll ci juróomi junniy milliards wala juróom benn junniy milliards wax na état du Sénégal budget bu ko bëggee am dina dina xoj Sénégal dina a Sénégal jamono ji ku ne dafa nekk ci état bu ëpp bor ci réew ci àdduna ci Afrique ba nga xam ne tey jii euh, nga xam ne mooy norme euh, mooy norme zone UEMOA na ko muy quatorze pour cent yi. Mm. loolu bu euh, Sénégal ku ne wax état du Sénégal tey dafa bëgg a Sénégal yokk seen seen seen seen tur ngir bëgg am li mu am ci budget te loolu dara andi ko ay tappaay ndax lépp ay bor di ko dugal ci yoo xam ne secteur yoo xam ne Euh, amul njëriñ waaye lépp ay alal aussi di di ko di ko ko di ko di ko di ko campagne ak di koy yaataa yu be moo jur askan mhm. euh, c'est vrai euh, Moustapha ñu ngi ci période campagne électorale ndax mën nañ xaarandi ab manifestation wala marche jëmale ko ci njëg ñu cher yi bu mouvement FRAPP di amal. FRAPP xeexam day wéy ci bu nekk FRAPP taxaw taxawaayu nekk ci wet askan bi ndax campagne électorale bu tey askan Mhm. wi dund. askan di feebar du tee askan wi di di bëgg a jàng donc à chaque fois bu ñu Sénégal soxla na tey ñu mi ñuy ko dañuy taxaw tey askan am na donc ñun xaaruñu campagne ak mhm. feebar bëgg a faju du tee ki bëgg a jàng bëgg jàng du tee ki bëgg xiif bëgg lekk aussi mhm. ndax tey ji xiif ne campagne lañ nekk noonu damay bàyyi ba campagne bi jeex ma doo ko faju mënoo mar naan damay bàyyi ba campagne bi jeex ma doo ko naan campagne ñëwee aussi day tax sénégalais bu tee sénégalais li noonu soxla tey dund ñu koy soxla donc FRAPP bu gisee tay ne wala suba tay euh, ngir am dund gu jag day taxaw xeex dépendre ci campagne ak ñàkk campagne électorale mhm. euh, Moustapha tey yéen ngeen yàggoon xeex pour grande surface yi jóge fii rawatina yi nga xam ne tubaab yee ko jiite tey mu mel ni grande surface yooyu bëri na ci yi nga xam ne ñoo xettali askan wi surtout ci période tabaski bi nga xam ne marché bi njëg yëpp dañoo cher. waaw am gis nañu suñu commerçant suñu suñu chauffeur suñu transporteur yi yokk njëg yi ci jamonoy fête bi nii waaye loolu ñoom am nañ ci part de responsabilité tuuti nañu hmm. waaye tamit responsabilité bi njëkk. état du Sénégal lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy joxañ baaraamu tuuma na état du Sénégal moom mooy diriger état du Sénégal moom moo yor lu ñuy wax puissance publique maanaam force bi nga xam ne tey ci la war a dal ci nga xam ne dafa jaarul yoon état du Sénégal boobu noonu nag bu ñu gis nañ ne chaque jour bu manifestation amee da jël yëkkati force boobu dal ci suñu bu bu dara amee dal ci la moo tax jël force boobu noonu dal ci suñu ñi nga xam ne ñoo dëppwul ak yoon ci njëg mu ci commerçant yi mu ci transporteurs yi état mm. Sénégal moo war a mais gëm nañ grande surface bi duñu ay solution mm-hmm. bu ñu ay solution aussi que des solutions yi qui créent d'autres problèmes mm-hmm. grande surface tey jii ñoom bu ñu ñëwee ci réew mi système bi ñuy bi ñuy doxal xam nañ ko mooy doxal ci yeneen réew yëpp muy fexe ba wàññi njëg gi attirer clientèle bi ba ñuy ñëw ñu fexe a rey commerçant locaux yi ngir mën a am marché maîtrise ci marché bi mën a di yokk ak di wàññi si lu mu leen neexee mm. loolu dafay tax tey dafay gàllankoor li ñuy wax souveraineté économique dafay gàllankoor dafay tax suñu économie si loxoy doomu aadama mais loxoy doxandéem lay nekk mm. te bëgg si loxoy doxandéem bi boobaa dañuy a manipuler réew mi ci nu leen neexee donc euh, grande surface yi duñ solution bi mm-hmm. donc mais wala bu solution bi c'est des solutions qui créent d'autres problèmes beaucoup plus graves mm-hmm. donc li ñu gëm mooy Sénégal moo war a fexe ba régulariser marché bi suñu mu fixé prix nga xam ne moom mooy waaye fexe du saytu ba kenn du mën a yokk prix yi loolu nag état Sénégal Sénégal nag état xaar mooy le premier responsable te moo war a sa responsabilité utiliser li nga xam ne moo di puissance publique ngir mën

mën a gëm ne kat doomu réew mooy tabax réew mën a gëm ne kat askanu Sénégal la ñu nekk ay sénégalais la ñu mën a am yërmande ci sénégalais jaay leen ci prix yi nga xam ne ci prix yu raisonnable la. Moustapha Diop ñu ngi lay sant di la gërëm. ma maa ngi leen sant di leen gërëm. di fàttali yaa bokk ci commission communication bu FRAPP.